yow mi say mbir dëgër ba lépp loo yaakaar mu tas wala yow mi di wéyale xeetu jàngoro bu la sonal trop wala nga nekk sa biir néegu sëy te bëgg am doom mbaa sax nga bëgg ak sa borom kër wala sax da ngay jàng te bëgg am ngay tukki te bëgg am visa wala sax nga soxla ay cangat pour ubbeeku mbaa muslaay gaaw gaaw di daan ak sëriñ Maalik borom àll bi ci ni mu la di avisé ci kàttanu yàlla ak mbaaxam maa ngi leen dimbali ci problème bu am sëriñ Maalik borom àll bi daal mooy askan wi Bilangin mo. di leen wax ne di leen ne la combat militaire yi la combat armée la maanaam bu tuddee maa jor combat bi jox ko armée bi jàmbaar ne ci àll bi di rey Sénégal ñu leen di fàttal souvent day nekk ci àll bi ñuy rey seen bopp voilà maa ngi leen di bàyyi xel doon ci combat bi di waaye bàyyi moo moo tax ñàkk jëluñu tey du ma leen ko jox ba pare du ma leen jox ndam kon yàlla ma yor yor ma ndam yàlla ma yàlla may ndam bu ñu ma wax lu bëri wax lu bëri ndax lii mooy yoon dafa war a li def naa ko suñu naa ko yaa nga xam kon lii damay neex ndax lii dafa neex yow dafa nga neex jërëjëf jërëjëf borom Touba jërëjëf borom Touba jërëjëf Cheikh Ahmadou Bamba Khadimu Rasul kacce nga ama Cheikh Ahmadou Bamba ke noreri mooru benn wax laa lay wax koy laa ko jige yàggul yàggul dara ay jaaraan la de ndax de sëñ bi moom woo fan yii fii ma toog fii sëñ bi toog fii Cheikh Ahmad Abdou Khoudoss toog nii sëñ bi toog nii sëñ bi taxaw lële kon bagaas yi ba léegi kon kii day xaar moo tax combat bi dafa tax dama bitim réew une chef si laa nga doon nekk dégg nga ma ne bi mbër yi baax yi dem am naa moyen pour dem fa am naa lépp pour mu toll ndax dem laa bu ji xam nga moo koy daal bàyyi daal brut jërëjëf borom Touba waaw combat bi dem Touba Sikori génn Touba Sikori dem Sikori garab yi fépp tamit di tàllal sama loxo fépp te maam Thierno Borom Daara da ngay tàllal suñu loxo bu baax a baax borom si góor yi sëriñ kala baax digal kala digal kala digal kala ba muy trois fois ba mu fayal digal kala maa ngi lay maa ngi lay maa ngi lay ñaar nga ñaar gis lool te ànd ak wér sa soo di dox si ndigalu sëñ bi si ndigalu kala léegi bu ñu jugee ci loolu yëpp ñu dugg ci biir géew kii noonu la defal dangaa wax kii dafa sos. sos moom moo taxaw di keneen taxaw. loolu it day xaar ma ne daam lu ma ko waree moom. jërëjëf borom Touba. jërëjëf borom Touba jërëjëf borom Touba. waaw ah, loolu la kay mooy yoon quoi. kii lan moo ñu boole. abit mooy soufflé abit ba ñuy taxal da ngay xat ba abit abit soufflé dama koy dal inshallah waaw si kàttan suñu borom la ak bu soufflé la ngeen inshallah man si kàttan suñu borom suñu borom rek nga doola bi daal maa koy ñaan yàlla may ma doola bi soo koy defee comme noo ko bëgg a da ngay xeex si da ngay bëre si noonu bëgg a ñëwee yéen ñaar ñëpp zoos yor ko wax dina do koy ñu ko sos jeudi passé man ak yow ñoo nekkoon ci guddi bi ma jugee ci aada ci yow laa jubal si bi ma jugee dama fekk sa kanam yi néew yi man laaj la nga ne ma dama doon xeex te combat bi damay ñëw defaral si booy bi damay xeex ak ko parce que dama xamul lu ngay xaar moo tax wala muy simbali xam nga moom li muy def nii mooy neex na signature bi la koy neex li muy ñëwee nii lii plaisir la si man yàlla xam na bu ko defoon rek signature bi du neex xam nga xaaral la si toog xeet bi nga waxoon si nga nekk ba mais bul fàtte ne kii MMA laa ko indi soo pare dinaa am géej lañ jëm di serment wala yow kese ñu jox kaa wala yow kese ñu jox kaa ñu si ah waaw. dama la mën a wax benn jooy laa lay jooy. benn jooy laa lay jooy. ko duma si làmb yi yóbbu ko MMA yi dégg ko leer laa ko. incha allahu rabbi combat bi la ñuy xam ne en tout cas moo dama jabar, moo tax ma ñàkk sama làmb jëf bii nii nii nii damay confirmer am fu bëgg jëm si làmb waaw fu bëgg dem si kàttan suñu borom moo ma koy xaaral te insha allahu rabbi li jeune bi ma ko gisee kanamam daa néew te nee na dafay xeex si ak yow man foo bëgg jëm si làmb déggoo ma kii ma déggoo ma ne Sénégal dañoo ñàkkoon coupe d'Afrique ñu am ko am suñu borom bi rek maye suñu borom koy waaw man dama nekkoon ci yoon bi dama nekk ci yoon bi yàgg ci loolu ba nga dab samay morom donc kii lu ma téye ba ngay daal bu soobee yàlla avancé dem sama yoon. kon nag loolu la koy wax yàlla mooy yoon nag yàlla mooy yàlla may. kon kii boobu ba léegi mu ngi si yoon bi loolu egg man 2017 laa dugg si làmb balaa 2025 wala 26 damaa bëgg egg am li ma am si làmb bàyyi làmb te incha allah rabbi gaa sama gars yi. à la base bala la màgg rek da ngay gën a màgg ah eh, loolu waaye nekk lu waa dee dara wax dama fay tubaab. loolu moom wax dëgg yàlla du ma si ñaan ala ala ala ak yàlla du ma si ñaan du ma ci soxal non waxuma la du ma si ñaan ma la soxal mais dama ne la yow dama lay daan laa ma ji. daan yow si kàttan suñu borom dama lay duma dama lay daan si kàttan suñu borom dama lay duma dama lay daan grand frère sama grand frère waaw cër boo war a la may jox joxuma cër déggoo ma rek joxuma cër cër mu ne déggoo ma joxuma cër Jangan lupa laa ko amul ndax nag Tawafar umur bonem jatuh umur belum lapas kira. Modal zalu beri eh. kan, kita. Dunia nade jambara. Ego mereka bonem. Dua kali kawa. Kaki malah. Jangan tebekan. Dua waktu. Ya mana. Dua orang wajib. Kita lalu dua mana. Bagi kemarin ini saya ambil sama Tuhan ini. Tidak, no, no. Lalu kita kemarin dia. Lalu super lakukan. You never mind.